exactement alors euh, benn kàddu goo xam ne tamit yëkkati na ko fa mooy euh, coowal livre bi nga xam ni euh, française bi di Séverine Awenengo Albert d'Alberto jot na ko daal di bind duppee ko li nga xam ni moom moo di l'autonomisation de la Casamance. boobu livre jur li nga xam ne nag moo di polémique d'ailleurs sax APR bindoon na benn communiqué euh, di xamal ni lan moo tax président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko def pata ci boobu livre dem Ousmane Sonko euh, réagir na ci livre boobu foofu la ca Ziguinchor di ñu xamal ni kenn du ko autorisé fii biir Sénégal euh, kenn du ko fi jaay tamit parce que livre boobu xëy na dafay mel ni luy prôné li nga xam ne nag moo di indépendance su lii di Casamance nan nga gisee aussi réponse bi nga xam ni saisir na ko naka démb pour rek leeral coow li nga xam ni moom bàyyi ci boobu le livre. waaw gis nga livre bi waa tubaab bi mi ngi ko dippee lii de la Casamance autonome. Mhm. moom d' abord li may njëkk wax si ñoom ñoom li leen waroon mooy d' abord non n'ont qu'à prendre Thiaroye mhm. wax ci génne si lii bu wax si bu boobaa ñun xëy na dinañu intéressé mais yow nga dem xooli fi nga xamante ni foofu lay xam be nga bugg ko dugal. Mhm. c' est comme si yow tu veux pour que euh, pour l' indépendance de la Casamance. mooy li may wax rek sànq mooy li ma doon wax sànq rek bi ko gars yi yëkkatee bugg ko yëkkati. Mhm. bugg ko coow Ousmane Sonko hier fa mu demoon c'est une zone très très très sensible. Mhm. il fallait ce discours apaiser tension yi xamal nit ñi li xew li ñu xamante ni ñun mënuñu fa egg ci information mu informer ñu. Mhm. ba xam ni fii la ñu nekk fii lañ toll. ensuite nag soog a nag wax ce ne sont pas des menaces. wul ay menaces c' est des c' est des paroles yoo xamante ni mooy parole yu dëgg. wax leen ko c' est à dire euh, te d'ailleurs loolu moo tax sax d'ailleurs euh, affaire général Kandé boobu. bi ko gars yi buggee dugal moo tax mu wax ne mu attaque wax carrément que ne ku ma fi déggati nga waxati lu mel noonu. ñu xool bu fekkee am ngeen fit. ngeen waxaat lu mel noonu ndegam du ngeen dem ci kaso bi. Mhm. kooku moom loolu tax gën a tax sax mu wax ko bon livre bi nag vraiment man je crois que y la France derrière. Mhm. parce que nag France aussi chaque fois c'est comme ça man maa ngi koy jàpp maa ngi koy maa ngi koy maa ngi fàttaliku jamonoy président Abdoulaye Wade. Mhm. bi mu waxee ne dafay inviter la France pour que ñu retirer seeni seeni minit seeni. militaire seeni militaire fii camp yi ñu libéré ko. parce que il naa a besoin. Mhm. je crois que depuis mu joxoon waxoon kii boobu ba léegi France n'a jamais cessé teg ko choc pour lien ko pour déstabiliser mhm. régime am pour déstabiliser gouvernance am d'ailleurs euh, boo koy fàttaliku. Mhm. yëngu-yëngu yi fi daan am yëpp si jamonoy Abdoulaye Wade y avait la France derrière. parce que créé woon nañ fi ay mouvement doon leen financé am na fi sax benn projet bu mu fi am ndom si yàlla si ndeysaan euh, Lamine Diack. Mhm. amoon na fi procès bi ñu ko laajee xaalis boobu nga xamante ni de dañu wax ne dañ ko de xaalisu ger la woon. Mhm. bu mu recevoir woon pour kii. mais wax na si ba ne il a financé quelques groupes yoo xamante ni c' était comme moom. il mhm. était contre Ablaye Wade dañu financé woon yooyu pour que ñu def face ak moom wax na ko il l'a dit wala waxu ko. waxoon na ko mais loolu si lu passé la jaratul sax di répéter mais en tout cas pour dire que ne rek la France quand ses intérêts sont menacés surtout que dafa am yenn pays yoo xamante ni daf ko teg bët mhm. ku Sénégal si la bokk Côte d'Ivoire si la bokk Burkina Faso gis nga pays ñetti réew yooyu c'est pour France il n'est pas question que muy perdre ñooñu te presque gis na ne ñooñu la yor léegi nag loolu à chaque fois que mu am si moom mhm. il fera tout dina def lu nekk pour Euh, essayer de ñoo ñu seen régime mais c'est peine perdue parce que heureusement euh, l'actuel gouvernement bi nga xamante ni moo fi nekk le peuple en question que soit ça nga bokk parti bële wala beneen parti en tout cas la majeure parti des de la population ànd nañu ak ma ak gouvernement bi fi nekk ci lii nga xamante ni pratiquement moom la ñu jugte pour defar ko ci réew mi ànd nañ ils ont communiqué ils ont longtemps communiqué parce que Ousmane Sonko a toujours chaque fois dafa yàgg bi muy jaay projet bi dafa yàgg di waxtaan ak askan wi. Mhm. askan bi la daan waxal. di leen xamal ñun li nga xamante ni moom la ñuy am toujours si ni coopération ñun ak France du coopération gagnant gaña ñun ak France coopération bi ñu si am yëpp ñun ñoo siy sonn. Mhm. ñun ñoo si bëgg a dee. comment on peut comprendre ñun ñu am ressource li nga xamante ni mooy suñu ñun mooy suñu koom on vient ici ñu jël ko récupérer ko dem transformé ko dellu si ñëw jaay ñu ko. Mhm. à des prix vraiment yu ëpp. c'est pas normal c'est là où la ñu wax ne bon ñoom si seen référentiel 2050 ils ont prévu l'industrialisation. Mhm. ils ont prévu de euh, faire euh, travailler le, pratiquement les jeunes. Mhm. couche yëpp ku si nekk di nga ci gis sa bopp gox boo nekk foo mënti nekk on fera de sorte que. la ngay xamante mooy préoccupation dëkk boobu ñu def ko ba telle sort ko dootul amati exode. Mhm. nit ñi ils pré ils vont préférer toog foo ñu nekk di fa liggéey mu jël autoroute de l'eau bii nga xamante ni barki Dembo Ndiaye lañ ko lañ ko lañ ko lancé mhm. vraiment kooku c'est une très bonne chose dina permettre déjà développer na si lu bëree bëri mhm. bëri ci Casamance li nga xamante ni ñoom loolu lañ si mën a bénéficier donc loolu vraiment ku la ko wax ku la ko wax. àpp ko si deux mille vingt cinq ba deux mille cinquante mais entre temps am na loo xamante ni c'est prévu. lu mën taxaar diggante deux mille vingt cinq ba seen mandat bi ba. ba deux mille vingt neuf mais sa waay ku la wax loolu. ku la wax loolu mais vraiment mënuloo dudul adhéré si loolu si projet boobu. à cent pour cent ba gis leneen loo xam amul. mais bëgguñu fonto bëgguñu attaque bëgguñu faire euh, croire que ne campagne électorale bi duñu ko basé wu sur campagne thématique. Mm-hmm. mais xastante xuloo jàppante parce que man maa ngi déglu yeneen man maa ngi déglu ñeneen mm-hmm. mais li may déglu la ma fay bëgg di dégg. Mm-hmm. vraiment mooy mooy li nga xamante ni presque moom la askan bi bëgg a dégg. duñu ko fa dégg ay jébbaane ay wax fii. ay waaso. Mhm. ay man dama jëloon kii bële parce que ba ma xam nga loolu les populations n'ont plus besoin de ça. Mhm. li ñu bëgg a dégg mooy de thèmes de campagnes des camp ay campagnes mhm. boo ñëwee gox boo ñëw nga wax fa lan nga proposer lan nga jaay askan wi. ñu mën a dem loolu boo ko mënul mooy pour man damay jàppale rek amuloo argument. boo ko mënul damay jàpp ne yéen ñi da ngeen ñëw xëy na peut-être pour pêcher ay voix fii. suba ngeen am député bu ngeen demee à l'Assemblée nationale am immunité mm-hmm. loolu rek loolu rek li amul leneen amul leneen wala boog si jamais par extraordinaire te yaakaaruma ko que xam naa ne yàlla bëgg nañu mm-hmm. yaakaaruma vraiment yàlla bëgg nañu yaakaaruma ne renverser dinañ mën a renverser tendance bu mën a am man une majorité écrasante mm-hmm. pour faire face à ce régime qui est en place def blocus loolu moom yaakaaruma ko comme ñun ñoo fexe comme ñun ñoo fexe ba. génn ci Macky sàll ak jàmm. am naa yaakaar ne réew mi dafa mel ni euh, yàlla daf bëgg a dimbali. Mhm. pour que ñu teg ko ci anam yu leer. daa mel ni loolu caravane mi ngi koy montré. caravane yaa ngi koy montré. y de mobilisation mobilisation bi exceptionnelle c'est location d'ailleurs loolu moo tax c'est que Ousmane Sonko changé de stratégie. Mhm. il s'agit pas de mobiliser rek mobilisation def musique tintamarre yu affaire yu neex yooyu yëpp bon c'est bien beau mais aussi ñoo ñu di ñëw foofu ils ont besoin de savoir ñii gox bi ñu dëkk. lan la ñu prévoir pour ñun. quest que le gouvernement prévoit pour ñun si jamais demain ngeen am une majorité écrasante à l'Assemblée nationale pour pouvoir voter budget bi. ñu xam fan ngeen ñu jëmale. parce que ces députés ce dont on a besoin. mooy député yi nga xamante ni parce que député yi il faut il faut il faut nga xam la la à part peut-être la liste nationale les députés yi nga xam ne ñoom la ñu tabb département yi. mais c'est des députés yoo xam ne suba à l'Assemblée nationale sont eux qui vont venir plaider. Mhm. si gox ba nga dëkk les revendications yi nga xam moom la ñuy jot foofu. démb maa ngi seetaan benn maa ngi seetaan benn. Euh, xaw ma si TikTok la xaw mhm. en tout cas benn extrait bu ñu ma génneel. Mhm. Pape Malick Ndour maa ngi koy dégg mu ngi yor benn euh, papier di wax ak ay nit naa leen. bi ma leen bi ngeen may wax bi ngeen may wax seen seen tawat bi boobu temps Ousmane Sonko nekk fi mu hmm. comme si yow da nga ñëw au lieu nga defal nit ñi mais yow comme si da nga ñëw pour xul ak waaj hmm. pour askan bi mais c'est pas ça xam ngeen di am rajo Sonko nekk fi waaw bi ngeen di am rajo <laughs> Sonko nekk fi bi ngeen di am mel ni yow ñi ngay waxal dangay ngay xul ak ñoom mais du loolu parce que ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñooy voté ñoom ñooy ñi nga xamante ni suba ñoom à part seen liggéey la ñu am seen ñaq la ñu am

tout est permis war nga wax lu nekk nit ñi. di leen xasak wala di leen wax ba ba ngeen di am télé wala ba ngeen di am kii mel ni ñooñu waruñu am télé mel ni ñooñu waruñu am li nga xamante ni ñeneen ñi moom lañu am. Mhm. mel ni réew gox boobu warut a warut a développé Ousmane Sonko romb na benn dëkk romb na Guinguinéo. Mhm. romb na dëkku dëkku euh, Pape Malick Ndour Mbadakhoune. Mhm. lan lañ ko si rang-rang bi la jaar. rang-rang boobu nga xamante ni boobu foofu la jaar bi mu fa jaaree y a des am na fa ay militants waa askan bi dañ ko ne carrément. dégg naa micro trottoir sax bu bu bu journaliste dem def mais ñoom ñëpp à l'unanimité lan la ñuy déplorer nee nañu pour ñu génn seen dëkk fii pour mhm. dem si yeneen dëkk yi si tout un tas de problème problème la moom problème la parce que amuñu tëli rang bi baaxul tëli bi baaxul pour ñu dem dellu si ñëw waa ku mel noonu nga dëkk si gox boobu tey maara deytaal yi kenn ñaanu ko yàlla mhm. am fa koo xamante ni euh, jigéen wérul la mhm. war a toog ba ma war a matu bu fekkee fu mu war a dem op ñoom amuñu hôpital wala mu war a dem à quelques kilomètres. Mhm. pour dem mën a wasini mais diggante boobu loro ko. Mhm. wala sax mu nekk en état di jaar si rang-rang boo xamante ni day def ay bruit mais rien que pour ça rek mun na yàq mun na yàq léppam. Mhm. ëmb donc c' est normal ñoom ñu kaas c' est normal ñu wax li nga xamante ni moom lañ bëgg. foofu lañ dëkk ñoom ñoo fa dëkk foofu lañ am amuñu feneen. foofu la leen yàlla sédd donc yow li nga war a def rek yow man yow mii acteur politique yow mi nga xam ne da nga ne da nga bëgg suba yor les destinées de ce pays. mais yow yaay jaamu yow yaay jaamu askan bi. vraiment da nga war a nekk jaamu askan bi. di jaamu seen soxla li ñu soxla nga defal leen ko parce que yow askan bi moo lay fay. Mhm. le président de la askan bee koy fay askan bi moo ko doté lii lépp li nga xamante ni moo ko am. tey président rek la yàlla may. Mhm. mu war a jaar fii képp koo xamante ni am nga soxla waroon fi def di nga toog xaar ba mu jàll ba dem yow nga soog a def li ngay def. Mhm. voilà donc kooku bu la ko mayee wax la jox la lépp. Mhm. li nga xamante ni comme jumtukaay pour nga liggéey ko yaa xayti munoo nekk lu dul jaamam. Mhm. rawatina nag gouvernement bi nga xamante ni dañ leen sas ñoom ñu dérouler. Euh, le programme du gouvernement le, le programme bi nga xamante ni mooy mooy. programme référentiel 2050. voilà 2050. alors per euh, est-ce que yaakaaroon aussi euh, ci ci yooyu kàddu euh, mënoo si sentir ni kii di Ousmane Sonko euh, dafa mel ni kuy mettre en garde li nga xam ne nag moo di la France parce que gis nga livre bu avant nu koy publier wala ba nu ba nu ko annoncé euh, jur na li nga xam na nag moo di coow pendant douze ans euh, ci li nga xam ne nag moo di nguurub Macky Sall daanaka mësuñu bind euh, li nga xam ne nag moo di bile bile xeetu livre président Bassirou Diomaye Faye ñëw même pas sept mois nu bind li nga xam ne nag moo di bile livre mais ni kuy def li nga xam na nag moo di l'apologie pour l'indépendance li nga xam ne nag moo di Casamance est-ce que tey ji yaakaaroon ni que ni carrément lii di la France moom moo nekk di jouer li nga xam ne moo di gis nga régime bi fi nekk daanaka ñoom à chaque seen kàddu lenn na ni wax que nekkul li nga xam ne moo di ay anti français mais dañoo nekk li nga xam ne moo di ay pro sénégalais ñoom it i euh, discours euh, bu ñu nekkee si kujje gi bokk na carrément bu ñu ñëwee nu dindi fi lépp loo xam tey euh, fii ci biir Sénégal donc est-ce que yaakaaroon ni peut-être la France moom moo nekk di jouer ses dernières cartes contre le régime de de de Bassirou Diomaye mais loolu yàpp ça ne pas réflexion loolu c'est visible ñëpp ñëpp xam nañ ko. Mhm. jarul Euh, xalaat jiixi jaax wala dara la France est derrière moo nekk ci gannaaw. Mhm. gis nga bientôt ah. on va vers la libération de l'Afrique gis nga Afrique il faut que moom boppam boo ko xoolee léegi on des jeunes mûrs. Mhm. ñoo yor réew yi xale yi boo xoolee booy déglu léegi seeni seeni booy déglu léegi seeni discours. xam nga mu wóor la rek xam nga ne ñii parce que leen rek mën a am tey loolu ñu ngi ko doon xaar mu ñëw. gis nga euh, mag. Uh-huh. erreur yi nga xamante ni la moom la mag yi defoon xale yi ñëw de à chaque fois dañ si bénéficier wu. mi ngi uh-huh. mel ni tey par exemple nu ma la ko mën a waxee mooy boo koy jëlee si football bi. Uh-huh. football bi lan mooy def lan moo def kiw wu Sadio Mané. lan moo tax tey Sadio Mané ñëpp naw ko lan moo tax Sadio Mané vraiment àdduna bi à l'unanimité ñëpp braqué seen i kii si Sadio Mané Sadio Mané Sadio Mané il a pu bénéficier des erreurs yi nga xamante ni c'est ay magam moom lañ doon def moom mu gis mu nekkoon fi gis ko tey mu dem ba nekk star. donc am na yooyu erreur yooyu doon def moom du ko def il va non seulement il va rectifier mais dana gën a parfaire. day doxal noonu la demee i dem aussi pour ñi nga xamante ni tey Afrique ñoo fi taxaw pour kii ko boo demee tey Mali. wala nga dem tey Burkina Faso wala nga dem euh, euh, Guinée. Uh-huh. ñëw fii Sénégal xam nga dafa am léegi ay xeetu autorité yoo xamante ni vraiment seen gis-gis. Uh-huh. dafa dafa wute léegi ak ni nga xamante ni moom la ñi fi nekkoon doon gisee. Uh-huh. ñi fi nekkoon sax peut-être amoon nañ am nañ xam-xam certes mais ils étaient trop dañ leen dañ tegoon pression occidentaux ni ñu daan doxalee ak ñoom ñun on ne pouvait pas s'en on vous ne pouvez oh, jamono yooyu mënuñu woon s'en passer de ces euh, pays là. Mhm. mais tey boo xoolee doxalinu xale yi daf lay wax ne ñoom d'abord il compte d'abord ci seen ressource. Mhm. ba pare pour nga mën a développer réew il faut que d'abord sa ressource yi nga am nga compter si mhm. ba pare soog a nag mën a tendre vers bon d'autres yeneen pays yoo xamante ni. bitim réew la ñu nekk. Mhm. pour que nga mën a liggéey ak ñoom dans le cadre de la coopération mais dans le cadre de la coopération gagnant gagnant looy gagné man aussi lu ma si gagné en contrepartie. Mhm. donc ñooñu vraiment c'est une chance actuellement pour ñun ñi nga xamante ni euh, bon ñu ngi koy fekkee euh, fas yéene yaakaar ne ñii fi ñëw daal vraiment dinañ changer réew mi. dëggantaan mhm. mais nag quant à livre boobu di ci wax bu la si kenn nëbb. bu la si kenn nax. il a la France derrière il y la et comment dire pourquoi ma ne il la France derrière. Mm parce que France ba léegi dafa am fii ay répondant yu fi nekk ñoo xamante ni ils travaillent pour le compte de la France pour gain. Uh-huh. man ku ci mel ni ay jamono ay genre ñoom ay Madiambal Diagne ñooñu c'est des c'est des intellectuels prostitués. Uh-huh. loolu la ñuy wax euh, prostitués intellectuels c'est-à-dire s'il s'agit de la politique. dafa am des euh, dafa am ce qu'on appelle le prostitué le prostitué politique mhm. mooy ki nga xamante ni tey day euh, utiliser intelligence am jëmale ko ci beneen anam mhm. moyennant jox ma dara xam nga au lieu d'abord nga privilégier d'abord li nga xamante ni mooy jub jubal jubbanti mhm. non non tu four de ça yow li la intéressé mooy ah man daal am naa xam-xam bu ma waxee nit ñi dinañ ma déglu am naa ora boobu donc léegi maa ngi nii damay jaay sama xam-xam. Mhm. kan moo bëgg pour ma jaay la. ki nga xamante ni dafa am intention suba pour exploiter diw wala exploiter kii réew sàngam wala réew sàngam yow pare nga pour ànd ak moom pare nga pour ànd ak moom. Mhm. mooy xeetu genre ma jàmbal jaañ yi mooy ñoom Cheikh Yirim ñi mooy ñooñu ñooñu rek genre yooyu la te wax dëgg yàlla euh, avec détermination ferme. Mhm. de ce régime en place am naa yaakaar ne vraiment on temps vers. Euh, changement bu am solo bu am solo. boo xamante ni vraiment moom la askan bi soxla si si fii si réew bi. exactement alors moom Ousmane Sonko ba tey daanaka euh, kàddoom tënkeewu ko foofu ndax am na beneen point bu am solo et je pense bien ko foofu euh, sénégalais yu si bëri ñu ngi koy xaar surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk foofu ca Casamance euh, plus précisément foofu ca Ziguinchor on se rappelle très bien Ousmane Sonko procès ak ki nga xam ne nag moo di Adji Sarr daanaka ba ñu koy tëgg. Euh, bi mu bëggee li nga xam ne nag moo di kaaraange dafa obligé dem ba fële ca euh, Ziguinchor dikk na si euh, bu muy am li nga xam ne nag moo di levée de fonds bi expliqué la moo taxoon mu dem Ziguinchor foofu aussi ci projet bi bëri na ay ndaw yoo xam ne ñàkk na seen bakkan pour rek projet bi mën a am li nga xam ne nag